nouvelle ma leen di jox nag xam naa ne du neex mais adina mo mel non je ne serai pas la tête de liste de Benno Bokk Yaakaar Medina. waxtan nañu ci waxtan lañu ñu ak président de la République ñu waxtan il nous a reçu man ak Cheikh Ahmed Tidiane Ba ñu waxtan information bi am solo moy moom mooy jiite listu Benno Bokk Yaakaar lu yàlla damul du nekk loolu laa bëgg ngeen téye ko xam ni dangeen ngeen ma doon gunge pour ma nekk maire maa ngi leen ci gërëm di ci gërëm waa Medina yëpp yi ma ko yéene woon di leen gërëm bu baax a baax di wax xale yi nga xam ne dañ ci defoon seen yaakaar mbir mi du woon rek ñu dugal ma man ci maire bi dañ moo doon àndaaleeg ñoom àndaaleeg waa Benno Bokk Yaakaar question boobu suma responsabilité là demain dina wo Benno Bokk yakar dajale len pour ñu tok xol liste bi naka lañ koy nit ki nam lu metti ci xolam mais nit fay assumer responsabilité am suma responsabilité mo don jité len ngeen nek sama ginnaw pour yalla defal ñu ko yàlla defalu donc damay ñëw en toute responsabilité wax len li nga xamni mo am information bi essentielle moy man Seydou je ne serai pas la tête de liste de Benno bok yakar ala medina lolou taxul adina tukki taxul adina jeex nek ko taxul ma yokku wàññi nek ñàkk nek taxul ma wàññeeku je resterai toujours l'homme de principe et de valeur que j'ai toujours été dama bëgg wax ni c'est important ngeen xamni da ngeen am engagement politique don na jaar ci nek conseil municipal dafa war c'est pas parce que man jiiteewu ma rek ken waratul dugg ci liste bi il faut ngeen dugg ci liste bi faut ngeen dugg ci liste bi liste bi dinañ ko défar tek ko ci yoon ba mu représentatif de toutes les couleurs du Benno Bokk l'action politique mo mel nii mënoon na gëna metti parce que nit dem na élection gañewul bu gëna metti fekk ngeen def ci effort yu bare mais lii la yàlla indi sante len ko yàlla na ko sante yàlla de continuer notre trajectoire politique alliance pour la république nous fi des di militants, militant di samay des di samay des di samay sœur di vous pouvez toujours compter sur moi sur ma solidarité mon soutien et ma présence ak ngeen daal monsieur président Macky Sall